d'accord ma tamit ñàkk bokk élection parce que loolu tamit day yokk problème rek mais parce que euh, ci jamono moom gars defoon nañ ko fi boycotté élection législative yi fi amoon bokkuñu woon ay PS affaire yooyu noonu mais ñoom ñëpp dañoo mujjee réccu ko affaire yi da ngay xeex xam liberté kenn du ko may kenn du lu ñuy jël dañ koy xeex ba jot ko léegi nag boo xeexee sa liberté ba jot ko nag ñuy yi ci yoon rek moo gën mais bañ a bokk moom parce que législative yi Sénégalais yëpp gis nañ ni jaarul yoon Macky Sall li ko neex la def parce que il est moo nekk ci parti au pouvoir bi il a utilisé son pouvoir def lu ko neex sacrifier élection yi comme il le veut tout le monde a vu ce qui s'est passé à Touba. parce que apparemment faut vote normal su fa amone ñep xam nañ ni mom ak Ablaye Wade dinañ dinañ dinañ xaw a méngoo. Modou Diagne Fada. ba tey day ah Ablaye mën na leen yàkkal mën na leen bañ a waaw loolu yëpp am na fa. waaw waaw. Momar Diagne Fada moom man li may wax ci moom moom yaakaar naa il a moom ak ses frères yi ñu àndaloon noonu ils ont échoué amuñu lan ñun lu ñuy wax Ablaye Wade dañu dem élection ils n'ont rien amuñu lan lu ñuy polémique ci affaire de Ablaye Wade Ablaye Wade yàqalu leen ñoom ñoo yàqal seen bopp. Ablaye day politique ñoom ñuy politique ñoom ñu wàcc ci terrain moom mu wàcc ci terrain bi ku nekk dam dem ci nit yi Ablaye Wade am li mu war a am moom moo am li mu war que ku nekk fi nga tolloon nga am rek. waaw ah, Abdoulaye li ñu naan ku kenn day liggéey rek comme ñoom question moo leen yàqal ci législatif bi sax mais ku nekkoon PDS rek doxaliinu Abdoulaye Wade doom doxal ñëwaat doon candidat wala mu bëgg fi teg doomam xam nga ne loolu moo yàq PDS. PDS bi mu fi nekkee bu jo bi Abdoulaye Wade waree bàyyi 2012 bu fi tegoon kenn nit koo xamante bi tey benn instant mooy doon seen candidat ko du doomam PDS sax mën na jëlaat nguur gi depuis 2012 ba tey kon kon bu Modou fa da waxee loolu man damay gis ne benn côté quoi bu dee waa ci PDS lay waxee moo leen yàqal quoi ci benn côté kon loolu laa gis.